traditionnel ensemble instrumental moom moo doon seen percussionniste sam papa dafa dafa ñun ay géwél lañu ci papa mais ay gawlo lañu ci yaay sama maam bi jur sama yaay ñu ko wax may sa Njaay gawlo moo njëkk a way rajo Sénégal boobu dañ ni ku kuy wayu rajo Sénégal te amuloo gàllaaj doo gudd fan ñëpp dellu gannaaw ba mu des sam maam sam maam moo njëkk a way rajo Sénégal moo jur Ndey Mari Njaay gawlo waaw Ndeye Marie Ndiaye du sama mm-hmm. grande sœur c'est ma tante. moo ko suma yaay noo bokk ndey ak baay. macha allah donc ñun dañu nàmp way dañu nàmp tëgg sabar ni may woyee noonu lay tëggee sabar ndax ñu ëlbati ko tuddee ma du Ndiaye Coumba man def naa tour du monde donc boo gisee tey ma ñëwaat ci sama musique am naa disponibilité léegi léegi am naa jot. pour nekkaat ci parce que lii ma yàlla jox muy suma baat moo ma yor ba ma juddoo ba léegi ci laa yor samay wayjur ci laa yor samay njaboot lu ma am ci laa ko am. loolu moo tax ngeen nga jot ma gis. d'accord waaye du Ndiaye Mbengue. waaw. na loolu dañ ciy kontaan à ah, Dalo waaw mais <laughs> am mbégte uh-huh. euh, contentement euh, xam naa ni man ni ma ko amee téléspectateurs yi noonu lañ ko amee alors kii